commune bi nag ñu ngi sant yàlla xaj na dugugu fi waaye kenn jombul kenn coronavirus jombul kenn kon loolu nañu gën a góorgóorlu buñ ci nekkoon nañ ci gën a nekk ba yàlla musal ñu ba li jóge fi ak jàmm gërëm bu baax a baax monsieur le sous-préfet ci engagement bi nga xam ne moom def na ko moom il en première ligne moom moo ñu gën a nekk jàmbaar sax ci xeex bi ndax mu ngi en première ligne ci transport bi mu ngi en première ligne ci école yi mu ngi en première ligne ci sécurité bi kon monsieur le sous-préfet vraiment en tant que maire de la commune mën naa seede ci tur population yi que sa liggéey ñëpp a ko rafetlu sa engagement ñëpp a ko rafetlu te lii mooy kon commandement territorial réew nag bu tolle ci jamono yu mel nii nag ah ci lay kilifa di doog a am mën naa ne am njariñ fi lañuy xamé kilifa ak kudul dul kilifa parce que bu askan bi jaxlé comme niko proviseur bi waxee sank bu tité bu jaxlé ah bobu nak kilifa nak nag dañu war a dox dafa kilifa kon chef de village ñu ngi leen di gëreum Ablaye nga wax ma suñu président chef de village yépp nii ko tegtal bii ñu leen jox sank te sous-préfet wax ko moy ñu gor góorgóorlu ci